nii la alhamdulilah. ah biram Faye yëf yi boo ko bëggee yemale fii day yomb. Jobay. Pate yow tamit bàyyi ma waay itam bàyyi ma waay ku la yéenee kaso du sa soppe sa noonu la yaa ngi may dégg ñetti fani kaso dafa metti man mii di bàyyi gone yi xam naa ci dara. papa Cheikh yi du lépp lañ mën a wax yow itam kii mag la nag. Cheikh mon cœur laisse-moi tomber laisse-moi comment dégg nga yow lan ngay pelante xale yi woro len a yow sa mam amul épée e sa mam amul mbaru épée ñom seen épée e maama réer lo ci plainte lu soyon biram lan mo ci soyon ah yow ya, bo amé loy waxay yeen ko ci bop mun len na bàyyi buñ len leen ci fi famille bi ngeen dafa né parent ngeen ci biram fay ajaami terang bu ne defal nalako ba ci yére bi nga sol ak seen mi ah nduku man ge nga né jakarta mbeuk na la fa kan mo yor sa famille ku len doon dundal ñi ha beure nga fi mbapat ñu door la nga kaw nek en commun top 5 wa lolu lolu jamono ndaw la won lolu xawna yag nak ba gi yoy joge yoy nak dafa jara wax li la met xamna ko bu baax da nga nobon baccel mi eh may ñu lako daane yoy nak bu wax dafa jot damay wax may ñu lako lolu mo la met joge toy na nak nga yo bi billahi lolu dal ci aduna ak sa njabot gi sa xol bu rafet mo la ko tek aja mi méfier dafa yaay loolu yow itam fay ñu ngi toog bu baax di jéggalu gannaaw ay jàmm alhamdulilahi rabbil alamin waaw lu mel mom moom yàlla na fi gëj yàlla bu mu amati ba faaw incha allah xas na nga nag ba dugg sa kër fi mom sa kër la loolu kenn laam-laameewu ko fay ñëwal dal si biir sangu comme ça ñu ñëw pare añ yaa koy dalu kan mooy dalu kii yow dalu di nga dalu yow man nga bind plainte bu pare di dalu te dalu fi ci fam bi ha ah? ñun ku ñu yobbu prison ku ñu yobbu police ba gendarmerie do fi añ do fi rer bi ba nga jël horaire bi ta delu horaire bi demagul nak ci kanam lay dem bu demul nga dox tabul aja ji moom mënoo ko fe ba di dem te nak na la conseil benn affaire de na nga jënd protocole nak kol sa marakis yi ŋaang ba ma ne eh, kërokodil paate seen waxal ki yaba te nga gaddu nga ak ni tour ko tu ndogu mom li ngay gawa a nubaate yëpp kere fi bëgg rek li ngay bëgg tay fil rek yow man bàjj lu tax nga bëgg te nga bëgg liñ continuer dimbali ñu rek.